asalaamaaleykum wa rahmatullah sunu xissa bi maa ngi ko jëlee ci benn page facebook bu Pascal Olivard Pascal Olivard nee na bi mu nekkee xale dafa nekkoon ci benn école di jàng seen jàngalekat bi jàngal leen leçon bu am solo buñ dul fàtte mukk jàngalekat bi dafa bind ci tableau bi table 9 daa di njëkk a def 9 fois 1 égale 7 loolu di njuumte mu teg ca 9 fois 2 égale 18 continuer ba 9 fois 10 égale 90 xale yi di reetaan di wakkante ci seen biir ndax kat xam nañ ne jàngalekat bi dafa juum ci tàmbali gi muy 9 fois 1 égale 7 njuumte la ñuy reetaan ba classe bi di riir jàngalekat bi tourné ni leen xam naa li ngeen di reetaan ak di ko wakkante muy sama njuumte gi ci kaw maa def exprès nag waaye bu ngeen bàyyi xel bu baax juróom-ñeent yi ci topp yépp dama wax dëgg dama ko bind bind bu leer bu wér kenn ci yéen félicité wu ci loolu waaye yéen a ngi bàyyi xel rek benn njuum te gi ma juum rekk ci kaw waaye fàtte ngeen yi ma wax dëgg yépp ci suuf mu ni leen dama leen a bëggoon a jàngal rekk àdduna ak ni muy doxee mooy lan mooy li feek yéen a ngi ci lu baax bi jubal di baaxal man ngeen a bañ a dégg kenn waaye nag terewul nit ñi ñépp a leen di déglu di leen bàyyi xel di sax di jariñu ci seeni wax mbaa seeni jëf waaye benn njuum te dong boo ko defee ci sa liggéey boobu day mel ne àddunaa ngi bëgg a këpp sa kaw su boobaa nag na ngeen bàyyi xel ne noonu la àdduna tëddee kon yéen samay bokki julit lan mooy jàngat ci xissa bi jàngat bi ñetti mbir laa ci xalaat bi ci njëkk mooy yow mi nekkoon ci lu baax ba benn bis nga juum ñépp di la mbamb su fekkee da nga digentek sa digganteeg sa borom mu wóor la ni te dong la ak nattu bu dal sa kaw te jéggalu yalla rëccu la nga defoon te bu ko defaat te continué waat ca lu baax la nga nekkoon du ñàkk yàlla jéggal la dellowaat la fa nga nekkoon bu fekkee tub gi sell na ba moy. bu fekkee wóor na la ni loolu du njuumte mooy sa jikko ci nga yàgg a nekk doon ko saay-saay na nga ragal yàlla yow nu ragal te xam ni yàlla du ku ñuy nax buur la bu màgg te yàlla dee su ko foowee ñetteel ba mooy ñun ndaw ñi nga xam ni ñoo ngi ci réseaux sociaux yi di góor-góorlu di wax lu baax ak def lu baax luñ mën ci wax lu baax nañ leen ci nekk luñ mën def lu baax nañ leen ko def te wattandiku bu baax ànd ak ragal yàlla ndax yow ndaw li benn njuum te goo juum képp mën na yàq mboolem loo doon def ci lu baax mën na sax yàqaaleel ñeneen ñuy def lu baax nañu ko bokk bàyyi xel